أعوذ بالله بسم الله ولي الله بسم الله الرحمن الرحيم رب أسرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أما بعد إن الحمد لله Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokki ñu ngi leen di ziar leen balu ak leen bal ak di ñaan yalla suñu kaddu gu fekk ñepp si jamm ak xewul tay ñu dellu wa ci taxaway yi si fayda yi moy njëriñ yi tay mbokki ñu ni leen fayda bu am solo buy dox si walu karange bayra bu and ak karange bayra la way dafa and ak karange mbokki lan ngay def da ngay ut xasu xay so amé xasu xay wut bëlween ngel sunguf bi hmm, ak soufu marché ak soufu selebe yon mom ngay jël nga bolé ko def ko xam mën nañ ko bolé baxal mën na nek timine baxal ko ko mu bax nga téggi ko mu mu sedd nga fexé sangu ci ñett yoon inshallah allah mbokk yi di nga di nga am bayré di nga am karange bayré bi dafa and ak bayré la bo and ak waaw da ngay ut xasu xay ak belwel ngel ak suufu marché ak suufu selebe yoon mooy fu selebe yoon mooy croisement ñeent kat koñ kat koñ nga def ko si saafara yi mën nañ mën nañ ko baxal ba mu kii nii nga teggi ko ba sa yaram ñeme ko nga sangu si su subaa tamit sooy kii su la neexee nga ndugal soo neexee nga sangu noonu mais soo xasee ba sangoo di nga am bayre bayre bu am kaaraange bayre bi dafay ànd ak kaaraange incha allah kooku mooy mbokk yi mooy taxawaay bu njëkk ñaareelu taxawaay bi mbokk yi maa ngi dugg si wàllu comme événement bi mooy xaru tabaski léegi nag mbokk yi soo bëggee lu raxas sa yaram ba pare aar la fexeel bu am si xaru tabaski sébrit bi bi weer ko ba mu wow su woowee mu sungu fuuf fuuf ak xay nga ut poobar bu mokk ak kaani boole loolu yëpp mbokk yi mu nek sunguf nga fexé sangu ci juroom ñaari fan baxna ñetti fan baxna mais gis nga lu mu fekk sa yaram da kay raxal bu mu set wecc bo paré dalay dalay dalay dafal da li ñaari day poisonné sa yaram. day sa yaram. wa day poisonné sa yaram. li nek ci mbàq li nek ci mbàq wa wa wa xaru tabaski nak lañ wax waxuñu nga dem benen xaru tabaski kon parce que xaru tabaski dafa am barké dafa am xéwal bu si nekk kon loolu soo ko sangoo juróom-ñaari fan incha allah la defal kaaraange ba pare ba raxas lépp lu nekkoon sa yem cat yeeg làmmeñ def-def yeeg yu bon yeeg yooyu yëpp da koy dindi ba pare nag aar la kon am na solo mbokk yi ñetteelu taxawaay bi ah li nga xam ne jombul kenn ndax ay prophète sax jaar nañ fa mooy lan kaso soo si bëggee mucc nag lii tettal la su yàlla àndee képp ku bind mudd sirasu ya putawaski sirasu xar nga fexe bo bind si mu daxaamataani lakk ko bo mu ñor nga lek ko inshallah allah mën nga dund bo jóge fi te doo dugg kaso mën nga dund si si res bi res resu xaru tawaski bi da ngay jël res bi bu bes bi nga bind ko si lakk ko ba mu ñor nga lekk ko incha allah yàlla mën naa def nga dund ba jóge fi te doo dugg kaso kooku mooy ñetteel tax ñetteel tax ay mbokk yi bëri na ñi nga xamante ne bëgg nañ seen kàddu sori ñu waxee nit ñi dégg leen rawatina ñii di conférence ak ñi nga xam ne ay borom kër lañ parce que kër kër soo fa nekkee soo fa nekkee bëgg nga soo waxee kat ñu déggal la eh toog leen ñu toog eh bàyyi leen ñu bàyyi. kenn ku ne bëgg na ko surtout kilifa mu nekk gis nga soo bëggee loolu mbokk yi fexeel bind lii looy bind suratu basa ba mu jeex nga def ko saafara soo ko defee saafara gis nga xaru tabaski nga jël làmmiñ bi toggee ko saafara bi mën nga si def euh, poobar mën nga si def euh, déedéet mën nga si def xorom poobar xorom ak ak euh, soble rek yooyu rek lay am mais yeneen yëpp du ko am nga togg ko ba mu ñor uh-huh. léegi nga seppi làmmiñ bi uh-huh. nga naan ñeex bi làmmiñ bi na su la neexee ku la neex nga jox ko mais yow doo ko lekk doo ko lekk ah. waaw pour ah. Ah, su la neexee nga sànni su la neexee nga may ko kii waaw bàyyi mayeeg yooyu mais nga soo ko defee da am facha sa kàddu waaw day leer day dëgër day maam day fasaaw soo waxee nit ñi dañ lay déglu xam nga bëri na kilifa am suñ ne waaw dama ne rek ñëpp nit bàyyi ko xel lii bokk na secret bu koy def bokk na si lu koy def kon si làmmiñu xaru tabaski foofu leer na kon ñeenteel taxawaay mbokk yi di am doom mu xaw mu xaw nekk ka nga xam ne maam déggul bu baax li muy jàng du gaaw a mokkal maanaam si kiis lay dox daal du gaaw a mokkal wala day gaaw a fàtte wala kii <laughs> ah waaw loolu nag laa doon bañ a wax xam nga baat bi dafa xaw a diis mais doom ba am ne du gaaw a mokkal du gaaw a dégg léegi nag looy def mbokk yi da jël paaka bu ñu rendee xaru tabaski paaka boobu moom ngay jël nga bind si iqra iqra nga siy bind si paaka bi bind turu xale bi xale bi su tuddee Ibrahima Ndiaye bindal iqra si paaka bi bindul Ibrahima njaay soo paree lan ngay def mbokk yi da ngay jël paaka boobu nga tàngal ko mun nga ko tàngal ba mu xonq su ne nee nga tàngal ko ba mu tàng rek ba nga xam ne maam soo ko dugalee si ndox bi rek ne nga dugal ko si ndox bi génnee paaka bi jox mu naan ko dina am mémoire day gaaw a jàpp dootul gaaw a fàtte te dina bëgg a jàng te da koy ya xool yàlla da koy xirtal si jàng day day sawar si jàng am nga am na ñoo xam xale yoo xam ne duñ sawar si jàng da ngay eh, dama jàng ñuy waaj waajal di dugg di génn di kii mais kii moom heure fi mu jotee moom mën a papa heure heure jàng jot na de waaw ah, papa damay tardé moom moo lay soññ sax ba pare day bëgg a jàng su wàccee dafa naa xaa damay jàng sama leçon non moom moom moo la si soññ Wow. dencee paaka bi mais si benn nit lay dox de mënoo ko defal Samba mënoo ko defal Demba waaw parce que lan moo tax tur baa tax xam nga dafa iqra Ibrahima Ndiaye nga si bind. leen kon kon kon kon liki kii bi mooy saa bu tabaski ñëwee soo amee benn doom defal ko rek xaar benen rek nga defal ko kii muy dox waaw muy dox noonu parce que tur tur ba nga bind moo tax foog naa leer na de hmm? ma daal di si rek noonu ñu dem kon dama ne mbokk yi bayre bu ànd ak kaaraange laa andi indil mooy lan da ngay ut xasu xay ak sungufu belwel ngel ak suufu marché ak suufu selebe yoon léegi nag mag ñi dañ doon wax naa ni su fekkee comme suuf yi soo koy wut dafay am waxtu boo koy wut dafa ne su fekkee marché sooy wut suufu marché bi ut ko yoor yor moment yi nga xam nit ñaa ngi dem jigéen ñaa ngi kii moo boobu yor yor xam nga si ne ñuy ndugg voilà mu ngoog entre dix heures et demi onze heures ba su ko defee nag soo koy kii man ni may wutee naa laay jàngale de comme man su dee man soo ñëwee ba si marché bi nuyool asalaamaaleykum wa rahmatullahi marché ak waa marché ah soo paree xoolal nga ne bismillah fas yéene ut si suuf ngir njëriñ nga tibb soo tibbee nga ne alhamdulilah yóbbu man noonu laay utee Souleymane waaw soo ñëwee si sële bi yoon bi tamit nuyul wax kom noonu dem yóbbu suuf soofu day am barke loolu si def day barkeel léegi nag loolu soo ko kiiwee ba pare nga boole ko baxal ko ba mu kii ba mu bax nga teggi ko ba sa yaram nga sangu ci juroom ñaari fan di nga am bayre bu and ak kaaraange ñaareel bi ma da nga wut sebritu xaru tabaski so paree nga wut xasu xay ak fouf ak pobar ak kani nga debbu ko bu mu nek ben sunguf nga sangu ci juroom ñaari fan dina raxas lepp lu nekkon sa yaram si lu bon ba pare dina la ar kula def dara du ko nettali bi ma Kep ku baña dem kaso lan ngay def da ngay bind ngay wut resu kharu tabaski si res bi nga bind si mudd xaamataani benn yoon rek nga koy bind lak ko ba mu ñor nga lek ko inshallah mën nga dund ba jog fi do dug kaso leen ñettel bi mané kep nga dafa bëgg am fasha di wax nit ñi diko deglu lu mu wax nit ñi deggo mu ki ni lan ngay def da ngay bind habasa wa watawala an jaaxul ama amay dëkk laxalawo lax ayo zakka ba mu jeex moom ngay bind benn yoon def ko saafara soo ko defee saafara nga ut làmmiñu xaru tabaski toggee ko saafara bi ba mu ñor nga dindi làmbiñ bi naan ñeex bi waaw di nga waaw sooy wax sa yow sooy wax sa say wax day neex nit ñi sooy wax sa wax day neex nit ñi so nekké ci kër ga lo wax rek dañ na ni dañuy yàkkamti nga wax da ki dara am seen am ay goor gi waxal way ndax nit ñi ki nga ñëw eh daf leen ni raw nga ñëpp kii wa waaw da nga koy ko ok dang kay koy raxal ba mu da nga koy setal comme ni ngay toggee sa kii comme ni ngay toggee sa añ rek sa añ xam nga do jël ndawal bi rek ñoro suuf raxal dafar ko mu ki kon ñentel bi ma né da ngay ut paaka bi rendi xaru tabaski nga bind ci paaka bi iqra xalé bi nga bëgg mu am kiss am xel lu mu jàng dootu ko fàtte nga bind turam tàngal paaka bi moomu xonq dugal ko si ndox génne ko jox xale mu naan sa kii saafara bi même même yow mun nga ko defal mag wax ma laa sa xel yow sa bopp mën nga ko defal sa bopp kiis la si kiis lay ndox mais soo defee iqra Abdoulaye Ndour iqra lii rek ngay bind iqra oh. Abdoulaye Ndour Euh, euh, kii. ñaax. Ibrahima Assane ñaax noonu lay doxe koo ko defal rek <coughs> kiis la dina dina lu mu jàng dootu ko fàtte xel bi dina neex dina bëgg a jàng foog naa leer na de alhamdulilah kon mu ngi noonu te loolu lañ fi indi woon si njëriñ yàlla na si yàlla def barke ku ko jël yàlla na ko jëriñoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wa ma zalika alallahi bi aziz yadd taaha dañuy def xaaral question yi dafa am benn question moo dégg